من حمين ويدرك محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام إسان قريب شرعان قلت كنتي إسان تكتهور سليمان سليم سليمان ولد مطهر سليمان كنت أدبكم الله مني تو تدرس حليتو lu dul cofeel ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. maa ngi sant imaam Abdoulaye Mbaye mu yóbbaale géewu imaam yi fi nekk yëpp. may sant bu baax ci organiser Mama Fatou Dieng Rassoul ñu ngi lay sant di leen gërëm ci organisation salaam. balaa may yóbbu benn baat képp ki nga xamee ni yaakaar nga ëllëg àjjana yeneen bi rek nga ci yaakaar mu wallu la mu rëmm la jugal sax. damaa bëgg ñu waxandoo baat bii. képp ku yaakaar ëllëg Moustapha alayhi salaatu wa salaam mu ràmm la maa bëgg ñu waxandoo maa bëgg rasulillahi man dégguma dara de maa bëgg rasulillahi déedéet day limi ko rek la dem keneen ki bu mu jël mbir boo ko day jaxasoo maa bëgg rasulillahi maa bëgg rasulillahi maa bëgg rasulillahi maa bëgg rasulillahi maa doyloo Seydina Mohamed maa yaakaar rasulillahi maa wéeru ci Seydina Mohamed ñu waxandoo juróom ñaari yoon alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم xarit généraux yi nekk ci Sénégal bi yëpp te di leen dellu njukkal ndax bu demee ba ay doom ay sët ñuy góorgóorlu di jéemantu ci Muhammad rasulillahi alayhi salaatu wa salaam kooku dañ koy delloo mag yu baax ne ci dëkk bi maam Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul Xaadimu Mustafa دلو سلام أبو القطاع شيخ أحمد هشام شريف رضي الله تعالى عنه دلو سلام سيد عزيز مالك سي رضي الله تعالى عنه دلو سلام شيخ الإسلام وعليه تمسكت muy sama maam xadim général des Kunta ak li nga xamee ne mooy canaba canaba du ma fàtte maam li maamu alayhi salaatu wa salaam dinaa dem ci kër dine yëpp nga leen jërëjëf liggéeyu mag ñi la yàlla nangu liggéeyu mag ñi moo rafet liggéeyu mag ñi moo tëdd la yàlla feeñee taalibe yi jéemantu di defantu waale mag ñi defal na lépp lenn bi des mooy alhamdulillahi rabbil alamin وسيرى والكرام وكما Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah sama gere a gën ca géer ah waaw alaykum wa sen actu ñu ngi leen nuyu bax leen bu baax baax di ñaan darajaay Seydina Muhammad alayhi salatu wassalam sunu borom defal leen jamm defal leen tawfiq du nuyu bu baax Cheikh mohammed Abdallah cham soppe nabi président de la fondation Keur auteur du livre Le Sauveur composé plus de 1111 poèmes dédiés tous au premier de l'univers Mohamed Rasulullah mu mel nag Bisbi, euh, Cheikh Mohamed Abdallah Cham, Sopé Nabi, bi euh, terrain Aiguillon Maman Fadjen premier vice-président de la fondation Keur Rassoul 10 milliards de saatu nabi Cheikh Mohamed Abdallah Cham, wo Murit wo Tidiane wo Xadr Layen wo kunta kunta wo njaasan wo ñep ngir ñu bëgg sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalaam kon ñong koy ñaanal bu baax Cheikh muhammad abdullah cham soppé nabi suñu borom yok ay xéewalam té wërël ko daraja sayyidina Muhammad mbolo mi yep daje nañ fi mbolo fondation yi ibi yep ñoo fi fondation Rufisque 2 ñoo fi FKR Medina ñoo fi kaulak ñoo fi fondation Kër sangal kam ñoo fi ñep ñi fi kon ñoo ngi ñaanal Cheikh bi suñu borom yok ay xéewalam té wërël ko ci barke sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim